comme waa Médina man la coalition Président en même temps coordinateur Passif passef donc devoir citoyen élection présidentielle 2024 pour élire notre président euh, Bachir Faye impression population bi 7 heures moins ba nii ba nii tisbaar bi centre yi yu ci bëri bureau de vote ñi ngi fees del del loolu nag di wane euh, ferveur bi lu muy wane mooy population bi dañoo namoon seen devoir citoyen bi mu ko def xañ leen ko ñu xeex ba am ko te li ko war a lépp mooy bëgg changement parce que régime bi fi nekk pendant 12 ans xam nañ ne espoir yu ñu defoon yëpp ci ñoom depuis 2012 euh, defuñ ko moo tax nag tey population bi yëg jóg ngir voter pour changement am amna nañ yaakaar ni euh, la coalition jomay président na ci am ndam ndax suñu projet population mi dégg na ko changement yu ñu proposer xamnañu dëkk bi li ñu bëgg moy àll bi fi nekk li ñëpp bok ñëpp jot ci ñu changer au niveau économique au niveau structurel ñu changer njàng mi ñu euh santé bi ñu changer aussi économie ba nga xamni jeune yi fi nekk yëpp espoir bi ñu am ñi former chaque année plus de 300000 jeunes bu ñu génnatee université ñu am espoir am liggéey euh, mag yi aussi ba ci ndaw ndaw yi am éducation bu baax mag yi aussi la war a am seen cër ci teraanga yi faju ci lépp lu war ci ñoom ñu am ko nuñ ko waree donc euh, projet euh, coalition Diomaye président dafa nekkal mag ñi nekkal fi ndaw ñi nekkal fi jeunes yi nekkal fi góor yi nekkal fi jigéen ñi jërëjëf.

dégâts mo moo dégâts centre mbay jaañ dégâts mo xawul beuri parce que chaque année non lay mel euh nombre d'inscrits foofu taxu beuri mais boo xoolee dans l'ensemble ensemble fi ëpp bureau de vote bo bolé quatre centres yëpp dans l'ensemble ça se passe très bien gis nañu ferveur ak engouement bi nga xam population médinoise bi moom lañ am ci ñew voté ci lan nga euh, puis la même question sur l'état du territoire. waaw sur l'état du territoire li ñu considère euh, Médina la plupart du temps moom lañ considère dëkk yu bëri yi wër Sénégal euh, ci ville yu bari ba ci village gis nañu euh, population bi dañu am tey euh, dañu am dañu am engagement dañu woné détermination ni pour jëli fi régime bi fi nek loolu moo tax nag depuis 7 h du matin defe na gaay yi da ko weeru koor bi sax defe na da ko yombal ndax bañu xëddé man mi ci la bok ba ma 4 h du matin ba légui tëdduma dañu jëk jëkk enchaîné ñëw ci centre de vote loolu muy woné engagement bi ñu am di ñu waxoon ni bala midi ñu pare ak moom midi bu ñu calculé woon xam naa

mun nga xam ni euh, ñiy jóge jàkk ji yu mel noonu jóge jàkk enchaîné ñoo fa ñoo fa ëppan mais terewul jigéen ñeeg ak ndaw ñi commencé na ñëw ba man suñu waa kër sax gis naa léegi ne la ñu commencé fa di gis